بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي تي العبادة والخدمة donc leen di nuyu di leen siyaare di fas yéene tontu yenn ci laaj bi fi ñëw rek euh, laaj bi ci njëkk day ñuy waxtaan ngir fexeel nit moom mu dem nettali ko ka fexeel ngir mu moytu ndax nettali gam ko nettali ka ñuy ka ñuy fexeel ndax day dugg ci ràmbaaj del de déedéet dugg ci ràmbaaj waaye ci laabire lay dugg laabire te laabire day àq ju jullit bu ne amel morom ja laabire mooy nit ki nga xam lu koy jariñ lu mu xamut wala lu mu nekkul nga xamal ko ko bu dee da koo xamutoon walla nga nekk loo ko ca bu fekkee da caa nekkutoon wala nga xam lu koy lor lu mu xamul wala lu mu moytuwul nga xamal ko ko bu ko xamuloon walla moytuloo ko ko bu ko loolu mooy laabire kon lii foofu lay dugg waaye du dugg ci ràmbaaj muy àpp ju mu ameel ka ñuy fexeel la ginnaaw yëg na lor ju nar a jëm ci moom euh, waru garam la mu moyatuloo ko lor woowee jéem ko ko jéem ko jéem musal laaj bi ci mooy day wax na xëy na day gis lu bari daal lu ay nit di wax naan sëñ bi nee na ko gis lii mu euh, yaram araam na sawara walla ku jàng lii wala yu mel noonu mais ndax sëñ bi baaxoo woon naa def loolu baaxoo moom fooguma fooguma ñu mën a wax ne baaxoo woon na koo def moom ndax baaxoo mooy lu nit di def lu bari te sëñ bi mag ñi nekkoon ak moom moom am na ñu ci nett ay nett yu jóge ci ñoom yu wane ne buñ déggee nit ñi yu yu neex yu bari yu ñuy wax dañ naan ah xanaa kii daa bokkut ak ki ñuy wax daa bokkut ak kañ xamoon noonu kañ xamoon noonu te waxtaan daawut neexe nii kon wax dëgg sëñ bi moom mën ñoo wax dafa baaxoo woon di wax naan ko gis nangam ara yaram aram sawara wala ku wax nangam waaye nag duñu wax ne mosu mosu koo def duñ mas ne mosu wax lu mel noonu waaye lu ñuy gis nii moom ak di ko dégg moom lu ci bari moom mën nañoo jàpp ne lu wér la lu ci bari lu ñuy dégg démb rek gis naa ci wax ju doy waar joo xam ne loola moom wax ak lam ci wax dañoo safaanoo lool dañoo soree ba noppi hmm, jërut di sukkandiku daal li ñu ciy wax jamono yi moom jërut di jërut di sukkandiku yooyu nag wàññiwul dara moom bu nekk gis naa nga yaram aram sawara moom ku ko xool xool ko moom du la yàqal dara <laughs> bu dee dëgg ak bu dul dëgg moom boo ko xoolee du la wàññi dara loolu dara new waaye nag eh, du ma wax ne sëñ bi mosu ko wax ci mbir waaye moom doontoon aadaam moom ndax doontoon aadaam muy wax nit ñi yomb ak yu neex rek wala di ko bari léeg-léeg nag mu def ko ca ca ñam koy defee itam mooy ñoo xam ne loola du leen du leen taxa ci lu baax euh, laaj bi ci topp mooy dane kuy julli joojoo yu metti joojoo yu metti julli gi àgg sax ci toog ndax loolu dana yàq julli ga jëmmi jul jëmmi jooy moom du yàq ak julli bu fekkee euh, jooy ga ci julli gi la juddoo muy teewlu gum teewlu ak xalaat bu muy xalaat yàlla ak euh, bu fekkee ab Quran bi ñuy jàngal la muy wax moo xam ci àllaaxira lay wax moo xam ci leen lay wax yu mel noonu bu dee loolaa ko jooy la lu jooy lu jooye metti metti moom li gën a wér ci waxe borom xam-xam mooy du yàq julli donte am na ñoo wax ne nag bu fe àndee ak euh, ay kàddu mooy jooy yi nga xam day ànd ak kàddu boobaa moom day yàq julli euh, laaj bi ci topp kon kon bu dee lolo ko waral bu dee leen ko waral nak mom da yaq julli gi bu bu bu fen fenn da yàq fekkee moo ko tey te la ko waral nekul euh, lu aju ci julli bi bo ba day yaq julli laaj bi ci top moy day wax ne ko ko tux ko tux ba nopi julli ta galax diko wut ndax njàppam dana bax ndax ko lol lu ñu firi rek moy ndax tux dana yàqum njàpp wala bok ndax ku tux te gëllax ndikuwut bu di dem dana ba pa tux ak njàpp mom ci li ci borom xam-xam yi wax moy euh, sëquñ dara mooy amul jeexit daal ci njàpp jëmmi dagan ak ñàkk a dagan moom menen mbir la waa jëmmi ndax dana yaq njàpp mom mm, liñ ci wax moy waxuñ ne dana yaq njàpp moy du yaq njàpp donte nak du lu dagan lu dagan lu aram la fenum film laaj bi ci topp mooy juróomeel bi mu ne xam nañu ne sol lu xat dañ koy tere jigéen waaye dañoo gis góor ñi di ko def léegi ndax dafa dagan ci ñoom daganul ci ñoom ñoo yam rek sol lu xat lu xat nag li ñu ci jublu mooy loo xam ne day nataal cëri nit ki da koy nataal day nataal cëri nit ki da ci tafu ba koo gis daanaka moo ku mu solutoon yére ñoo yem ndax cër yi day ràññeeku ni ku solutoon yére daanaka ni cër yi ràññeekoo rek day ràññeekoo noonu loolu ñu tudde lu xat loolu moom baaxut ci góor baaxut ci jigéen mooy mayuñ ko góor mayuñ ko jigéen bu ñu wax awra li koy muur li koy muur mooy day doon loo xam ne du xat day wane cër yi nit ki du ñàkk a jot itam du yaraax itam ba ñu seen la ca ginnaaw loolu góor ak jigéen ñoo ci yam juróom-benn laaj bi moo ne dafa dëkk ay kercen ñu dul jullit waaye kercen ay kercen lan ay lañu eh, bu ñu amee seeni xew dañ koy yàkkal ndax moom daa leen sañ a yàkkal moom itam moom mu wax nag daa jàpp ne moom dana tabaski moom xam na ne sañ sañee su leen cee may xaw fu mu ko xamee nag comme ko xamee euh, tabaski ak lu dul tabaski ñooy may moom sañ nañoo may jullit sañ nañoo may kudul jullit bu tuddee may euh, kon jullit ki dul jullit ngeen doon ay dëkkandoo séq jàmm euh, di yàkkalante loolu de gën a rafetal seen diggante rek te ñu dëkk ñu ne luy rafetal seen seenu dëkk yi lu lu lu jaadu lu baax la kon mo xam tabaski la mo xam du tabaski man man nga koy yakal ci sam tabaski ci bop man nga ko ci may ndax ci ciir ba ñuy maye la tabaski man nañ ca sarxe man nañ ca maye man nañ ca denc yentu bi sama sama yoy lo xam la ñuy maye nak man nga ca may ku la neex ku julit ak ku dul jullit te sarax la ñuy wax lek lek te sarax sax li ci ëpp it man nañu sarax ku dul jullit laaj bi ci top muy juroom ñaarel bi tënk bi rek mooy koo xam ne waru ko koo xam ne julli ajjuma du farata ci moom kon mooy day julli tusbaar bu ko soobee bu ko soobee mu julli ajjuma waaye bu ko soobee mu julli tusbaar tusbaar joojee mu julli ndax bala ko sañ a julli day bàyyi bañ a julli ajjuma julli ba noppi wala bu waxtu jotee rek mën naa julli loolu moo tënk laaj waxtu bu jotee rek mën naa julli xëy na ñenn ñi dañu nekk ba ñuy julli ji julli ji ba noppi loolu day day tax ñu am lu leen wóor rek ne waxtu jot na waaye moom bu waxtu jotee rek ku nekk lay farataam man na koo def kii julli àjjuma mën naa julli àjjuma kii julli sañ ko it tusbaar mën naa julli tusbaar te waxtu bu jotee rek laaj bi ci topp mu juróom-ñetteel bi dane eh, li nu xam mooy la mooy julli guddul farata bu dee guddi dañ koy béral moy alcorane dañ ci jang dañ koy jang ci kaw bu beccëk dañ koy yelu mooy dañuy jang alcorane dañ ci jang ci suuf waye mo dafa gis ñu bari ñoo xam ne euh, ñaar ràkk yi ñuy julli ginaaw timis wala lu upp ñaar wa dal naafila yi ñu def ginaaw timis dañ koy jang ci suuf lu waral lool li ñu ñëk rek moy biral gogu ñuy wax ak yalu gi ci caaginu day lu munta ñak waaw luñ taamu la taamu waaw kii naafila bu ko neexee waxtu mën di doon bu ko neexee mu yewu waxtu mën doon bu ko neexee mu biral kon buñ naan guddi na biral mooy dañ koo taamu bëccëg na yeru dañ koo taamu euh, guddi nag buñ koy wax ci wàllu naafila guddi buñ koy wax ci wàllu naafila lu ci bari dañ ci jublu ginnaaw gee ginnaaw gee kon ñi nga xam ne timis dañ koy yeelu donte bokk nañ te ñuy taamu di biral ci guddi it mooy guddi gi dañ koo jàppee ginnaaw gee la tàmbalee ci ginnaaw gee ba fajar di jot loolu la faral di tudde guddi ci wàllu julli ba tax na kon kooka mën na koo dugal foofu mën naa doon koo xam ne it ginnaaw luñ taamu la rek moom muy muy yaru waaye guddi moom ci julli buñ ko waxee dañ ci gën di jublu ginnaaw ginnaaw gee juróom-ñeenteelu laaj bi te moo ci mujj muy wax ne ndax ñu duggandoo ci jàkka sañ nañoo ànd julli julli bi nuyu jàkka ji tahiyatul masjid ñu ñu def ko ci mbooloo ñu julli mbooloo loolu du taamuwuñ ko naafile yi taamuwuñ ñu koy def ci mbooloo yu dul yiñ xam rek yiñ xam yiñ xam mooy naafile weeru koor ak naafile yi ci des mooy yi nga xam ne lu mel ne jullikaay rek yooyu waaw waaw yeneen yi moom euh, taamu wuñ ci di ko ànd muy naafila yi nga xam day jiitu julli wala muy topp ci julli wala ku dugg ci jàkk di ko nuyu yooyu taamu wuñ ñu koy ànd kenn ku ne da ko defal boppam rek laaj kon ñoo fi ñëwoon tey ñoo ngi jégalu ñëpp wasalaamullahi aleykum wa rahmatullahi